asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm man la Fadilou Ndiaye euh, coordinateur mouvement citoyen ki Gindi askan wi. un homme d'état la ci contexte bi mu waxee rek pour le moment nii man laay mën a jàpp ne moo ko tax a dugg ci état moo di réew mi dafa am fu mu toll mu ñëw ne day jàpp ci suqali économie bi. ak réew mi économie bi wàcc gi mu wàcc ba zéro virgule euh, nangam pour cent yi mën a dellu siwaat place beneen bi ci des mooy li may jàngat mooy act politique itam euh, am na ci comme ni ko ñëpp constaté laa koy constaté ndax euh, day def politique te yàgg na ci opposition dépuis bi président Ablaye Wade di wut état mi ngi woon ci opposition Ablaye Wade di jël nguur mu ne ci nguur ba pare eh, génnaat nekkaat ci opposition jógewaat ci opposition dem 2012 mu bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar euh, mu génn ci biti euh, toog ba tey mu duggaat kooku daf cee am question yoo xamante ne sax moom personnellement moo am euh, place pour répondre ci mais ñun suñu analyse rek lañ ciy joxe mu di analyse politique boo xamante ne digganteem ak président de la république ñoom ñaar ñoo ko séq ñoo ko def euh, li tax ñu def ko ñoom ñaar euh, li ñu gis ci kaw rek ñun lañ mën a euh, apprécier mais dafa am au fond boo xamante ne ñoom ñaar ñoo ko xam ñoom ñaar ñoo ko mën a apprécier ñoom ñoo am pour leeral ci askan wi askan wi itam nag soxla nañ ci ay information yoo xamante ne dafa leer bu fekkee ñi ko ñenn ñi interpréter naan deal politique la réew damay jàpp ne dil yoru ko réew damay jàpp ne ay complot yoru réew damay jàpp ne euh, buñ la doyloo ba fal la euh, bocc fa ña ca des yow yaa am part de responsabilité ci lépp loo xamante ne mi ngi gàllankoor askan wi loolu euh, moom damay wax président de la république mu bàyyi ci xel bàyyi xel itam ci ñu àndaloon démb ak bërki démb nga xamante ne combat lañu def bu nekk Euh, ngir réew mi combat bu nekk la ñu def ngir moom mu jot ci réew mi ndax doy goo xamante ne euh, ñi mu àndaloon ñëpp doy nañ ko doy euh, maanaam doyloo nañ ko jiital ko mu ànd ak ñoom ci bàyyi xelam bu baax a baax bàyyi it benn baatu bu olof di wax moo di ku aay ku iñaane sa ndono saw deewin ñaaw baat boobu itam toujours war na koy gànnaayoo ndax baat bu am solo Euh, ci xam nga mission bi moom moo xam lañ ko sant ñun li ñu gis rek ci kaw lañ mën a àttee jox nañ ko ay responsabilités yu rëy rëy jox nañ koy ministère te ministère yooyu am na yeneen lu ci leneen lu ci aju mu di direction yi jox nañ ko conseil économique social conseil économique sociale nag moo ko waxoon ne bis bu toogee ci état daf koy éliminer ndax xaalis bañ fay dugal amulul njariñ réew mi loolu nag liñ ci mën a jàngate mooy euh, suñ boroom maanaam moom euh, toujours buy wax dafay wax aaya alxuraan boo xamante ne toujours dafay convaincre doomu aadama yi mu mel ne it aaya alxuraan moo ko tontu ndax alxuraan dafay wax ne yaa yaa naasu comme ni ma la ko mën a expliqué alxuraan dafa wax ne euh, yéen ñi nga xamante ne yéen ñi gëm am na wax ju ngeen di wax wax jooju nag na ngeen fexe ba sàmm ko bu ngeen ko sàmmuti na ngeen xamante ne maanaam suñ boroom ci boppam am na ci maanaam gëdd gu rëy la maanaam wax jooju bu ngeen ko sàmmut maanaam maanaam nga wor wala nga trahir wala yu demee noonu boo ko boo ko boo ko defee rek même boo ko sabantalee rek na nga xam ne lu rëy la ci suñ borom loolu it moom na ko bàyyi xel moom jàpp naa ne yooyu yëpp comme ni mu ñu koy waxee chaque jour ñu naan euh, xaale yi muy wax ak yu demee noonu waaye tey euh, alxuraan tontu na ko ndax euh, comme ni ma la ko waxee sànq wax ji ngeen di wax nit ñi wala maanaam yéene ji ngeen di am ci doom aadama yi fexe leen ba ni ngeen koy waxee ngeen di ko defee noonu su fekkee defu leen ko itam na ngeen xam ne lu diis la ci suñu boroom loolu man mais mission biñ ko sant nag. jàpp naa ne du moom mooy war a mën a doxal mission bi. moo moo koy jiite waaye dafa am ñum mu ko séqal. ñooñu ñoo amaat beneen vision ñoo amaat beneen keneen keneen koo xam ne daf leen a indil beneen programme bu bokkut ak présidente ba fa nekkoon. kon moom euh, mooy njiit li mais ñoo ñëpp am nañ ci part de responsabilité mu dox ak mu ñàkk dox. te conseil économique social comme moom ni mu ko waxee ci gis-gis politique ñu baree bari gisuñu ne. lu am solo la ci réew mi comme ni mu ko gisee ñu baree bari gisee nañ ko noonu am na ñu fa nekk sax ay membre au con euh, membre de conseil ñoom it gis-gis boobu la ñuy gis parce que xëy na la muy lëg lañu la la la membre le conseil économique social di jariñ ak yu demee noonu xamuñu ko wala xamaguñ ko euh, maanaam calcul politique ça dépend ci ñoom fuñ jëm ça dépend ci ñoom lan moo tax ñu génn ça dépend ci ñoom lan moo tax ki leen génne ci état dugalalu leen ci lu tax mu génnee leen ci parce que tey su fekkee ni ko analyse politique yi di waxee man dama koy wax au contraire maanaam du ma bu ma bokk ñoom fu ma jëm ndax ñoom dañuy wax ne euh, Macky Sall dafay préparer en troisième mandat ñii ne dafay préparer départ am non man li ma jàpp mooy euh, bu préparer wu troisième mandat moom bëgg na candidat boo xamante ni itam vraiment bëgg na mu gagné kon ñooñu mën nañu génn pour nekk ëllëg candidat fictif boo xamante ne euh, dañuy nekk candidat parallèle pour accompagner candidat président de la république loolu mën na nekk mën nañu nekk génn itam pour ñoom itam xam ne dañ leen a joxoon te kiloon joxoon daa wuti woon am ñoom it ñu war a wuti am xam ñaar yëpp mën na nekk mais pour le moment ñu nekk ci di di di ci laam-laamee ka yooyu dañuy bàyyi fii un mois deux mois bu boobaa ndox mi bu walangaanee fi mu jëm danañ xam ne ndox mi fii la jëm boobaa ñu xam fu ñu koy kar ñu doog a xam ne fii danañ ko fa mën a kar mais man sama analyse rek mooy ni ñu génnee mën nañu génn boo xamante ne mën na nekk génn bu bu bu nekk boo xamante ne euh, ëllëg mën nañu nekk ay candidat fictif ba moom mi leen génne moo leen def candidat fictif pour mu mën a accompagner candidature am ba nga xamante ne moom lañ bëgg mu gagné. kon génn gi wax dëgg yàlla di ci commentaire ci ñoom te ñoom kenn ku ci nekk sa joxe goo sa feuille de route ne fii ngay jëm wala fee ngay jëm loolu dama la nekk. wàcc gi ñu leen wàcce itam ñoom ministres yi ñëw ñooy am rek man c'est la première fois ma gis ne wàcce nañ lu mat six ministres yoo xamante ne yor nañ yenn portefeuille yi te seen base amul fenn fu ci yëngu c'est la première fois ma gis ko ci Sénégal kon ñoom ak ñi ñëw rek ñooyam dañ leen di considérer ay sénégalais lañ yu am xarañte ñi ñëw itam dañ leen di considérer rek ay sénégalais yoo xamante ne am nañ xarañte kon man loolu laay jàpp euh, loolu laa mën a wax rek ci euh, ñoom ñi nga xamante ne ñoo génn en politiquement. xam nga jafe-jafe jafe-jafe askanu département de Mbacké mooy jafe-jafe Sénégal mooy mbënn mi mooy xale yi dem ci géej gi mooy. Euh, nit ñi euh, ndaw ñi amatuñ emploi loolu jafe-jafe boobu maanaam réew mépp la traversé du du département de Mbacké kese jafe-jafe fa am dañ koo war a suqali da dañ cee war a taxaw non man li may xaar ci département de Mbacké moom lay xaar ci territoire national bi yëpp parce que li am ci département de Mbacké moo am ci territoire national foo dem mënda nga fa foo dem xale yu jë yoo xamante ne seenum njàng amatuñ luñ ko fayee agut dem ci Sénégal Euh, xale yi ñu ngi jël gaal di dem foo dem ci Sénégal fekk fa ndox foo dem ci Sénégal dañuy bay ba bay bëgg a dee mbay mi chaque jour ñuy kaas prix bi nga xamante ne moom lañ koy jëndee wala euh, ñu bëgg a jaay seen gerte ci prix bi mu leen neexee ñu di leen gàllankoor parce que di leen fixer ay prix yoo xamante ni si obligatoirement dañ ko war a jaay feneen li am département de Mbacké moo am ci territoire national bi rek. non comme li li li politicien di am ambition bi mu am rek mooy euh, fexe ba diw maanaam askan bi li ñuy jooy ma di ko wax parce que nag euh, loolu mooy sama sacerdoce maanaam li askan yi di wax ma man cee jot mën a taxaw comme ci euh, fu mel ne référence ak wala ci yeneen médias yi di wax état di dégg di ci jéem lam man ministres yi di ci jéem lañ man muy direction yi itam di ci jëm liñ man loolu loolu sama ambition ci la bokk sama ambition it bokk na ci tey conseil départemental bu Mbacké euh, bii di ñëw incha allahu rabbi ak ñi ñu àndal ñëpp muy territoire national euh, ni ñu taxawe woon 2014 ñu taxawewaat lu mel noonu donc waaw ñoo ngi sant mbonk internet yëpp muy référence ak ñi koy auditeurs yi ñi koy eh, internet yi koy seetaan ak ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne rek eh, olof dafay faral di wax ne lu jiwoo jeexul jógu fa te bu yoon jeexu jeexut it waaxu lu jeex waaw di sant ñi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf.